man nga naa wax ne kontaan nañ torop luñ fi gis balaa ñoo dugga buñ nekkoon si oto bi ma suma brother ah, honorable Sarr ma gis nit yi ma ne tey moom du affaire bu yomba lu tax ma wax loolu soo soo oyee nit yi nit yi génn uyu la nga gis magnitude bi si de ham importance bi bu sa activité bi am sakatuma so gisee jigéen yi so jigéen yi man man leen naa nuyu di leen sant suñ fi ñëwoon gisuma jigéen yi ni kon dinaa xam ne lii du dox wante bu ma jigéen yi xam naa ne dina sori parce que soo leen buggee sànke bi dox dina dox soo leen bañee bi du dox dinaa leen wax suma expérience bi si sànke bi ñeneenti at si gannaaw su ma jabar isi benn sànke ma ne ko déedéet lii def dee def dee tàngaay faalewut ma mu monte sànke bi complain naa ba sonna wante bu mu yàggee ma ne ko ah ndeke sànke bi baax na soo lu jigéen du bugga su yàggee góor bi dina ko bugga soo soo bëgg naa ngeen ngeen toppatoo affaire yi sànq bi yéen a dee toppatoo góor yi a dee toppatoo xale yi soo kontaan nañ torop ñu ngi naa sant di leen gërëm thank you